asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 26 février 2020 ñu ñëw ak yéen ci likkaay yi moo xam sunu làmb la wala yëglikaay bi nga xam ne moo di record bu dee yëglikaay bi di sunu lamb la moom daa mel ni waxi Alioune nga xam ne moom la waxoon bëri ki démb ci mbirum roi des arènes mi ak nees koy defe dafa mel ni Bécaye Mbaye nag xëy na di leen ci interpellé maanaam daal xëy na sampal leen ci ay wala mu leen wax bopp foo xam ne moom lañ ca war a jaar ngir def ko Bécaye daal ne na moom tournoi la ñu bëgg boo xam ne nii Bombardier cay ne du loo ak ki nga xam ne moo di Tapha Tine ak Balla Gaye numéro 2 loolu daal mooy wax ki nga xam ne moo di Bécaye Bécaye Mbaye daal leneen leer ba leer moom mbëri seconde zone moom soxla wuñu soxla wuñu leen ci tournoi boobu maanaam ñoo xam ne deuxième division la ñu ne père Becaye ne jëru ñu di leen ci dugal ñeenti ñi daal la jàpp ne ñoo ko war a def nee kon seen seen li ko war a mooy nañu génne ay millions yu baree bari teg ko ci taabal ji mën a organiser loolu su ko defee nag titre roi des arènes bi ñu mën ko réglementer teg ko ci aw yoon ku ko gañeeti mu bañ a wax bari ay wax wala ay coow loolu waxi Becaye Mbaye la du samay wax bu ñu demee fa nga xam ne nag moo di ci record moom daa mel ni moom tournoi boobee nga xam ne moom la ñuy wax moom moom Tapha moom jàpp nañu socce maanaam daal moom ku ko laal mu naaw ku ko laalut mu naaw moom na na pare na record nag la waxee lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi wax na ca moom wala bakaay bëgg ko ca tournoi ba moom xëes na di wax ci ab combat am mooy ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 diggante mag boy ñan jamaykee nag moo xëy di ca wax moom ma bëggoon combat ba jam na ne li leer ba leer daal cent cinquante millions yooyu ñuy wax moom nee na moom fa xalaatu ko daal di ko ca teg waaye li leer ba leer daal jàpp na ne moom Aziz weddiwu ko tey suba waxi noppi newu ko waaw wala déet loolu mooy ki nga xam ne nii moo di jamaykee jam na ne na ñu yaakaar may caaxaan wala damay kaaf ne na ñoom la rek waaye bu la 8 mars passé moom moom Jamaïcain bëgg naa tëgg combat boo xam ne nii bu rëy rëy lay doon ngir tëje ko li nga xam ne moo di fin saison maanaam mois de juillet loolu ki nga xam ne nii moo di Jamaïcain am na combat bu rëy boo xam moom taxaw na sunu làmb ñëw na ci wax na ko muy diggante Siteu ak ki nga xam ne nii moo di Papa Sow yëglikaay ba nag ci waxi Malick Thiandou moom nee na combat ba li leer ba leen dal tension ba moom lu ñuy gën a dem gën a monter di gën a yéeg ndax bër ki dem bañ jàkkaarloo fa nga xam ne mooy ca si Ndiaye moom loo ko loo ca mënti dégg moytation ba metti woon na trop trop ci ñaari mbër yi mu mel ni kon fi mu nekk nii de foofa moom mu ngay baax di yëngutu bu baax a baax a baax a baax ki nga xam ne nii nag wala ñi nga xam ne nii moom fa la Papa Sow nekkoon ba jóge fa muy faas yëglikaay bi nee na li leer ba leer day écrit ba na fa ci yëngutoo Boubacar Niang waaye li leer ba leer daal fa fekk moom taxuñu ko bari lool lool lool ngir def la nga xam ne nii moo di liggéey ba loolu sunu làmb lan koy fekk ki amam liggéey moom te kam ko seqal ne fa dem préparé wu ji muy mo loo muy Ama Baldé bi nga xam ne nii daal yëglikaay bi record ñëw na ci moom nag daa mel ni day moom demagul de waaye kam ko seqal moom dem na amaana mu mel ni kon am na ay régulation yoo xam na xëy na boobu moo ko dese waaye loo ci mën a dégg daal moom muur moom ko seqal moom dem na Yékini Junior moom yëglikaay bii di la ko tamit ñëw na ci moom ne moom it tey mu ngay accéléré la cadence loolu ci mën a dégg daal nekkul Sénégal waaye fi mu nekk nii coow li bëri na ci moom rawatina nag diggante ak Sa Thiès mi nga xam ne day jël na wala boog jiboon ak Sa Thiès mu dese ko kii nga xam ne moo di Yékini Junior yëglikaay bi xëy ñëw tey wax nu ko waaye bu ñu delloo sunu làmb moom Alioune mu nga fay waxaat ak nit ñi di docteur Alioune Sarr daal ne nañu leer ngir mu dem wala mu ñàkk dem nee na bés bu yàlla dogalee mu war a dem nan su keroogee moom day dem waaye loo ci mën a dégg daal moom waxi kase kase kese xam naa kon taxul mu dem lépp lu ci ciy man di doon mbirum suñu borom lay doon ak ñu ko wóolu dal di ko fay jële ca la ñu ko dégg leneen loo xam ne nii moom amoon na fi waaye coow laa ngay continuer ndax démb diggante jam téeri ak jët li démb jët li moo génn ne dafa daan jam téeri ñaari yoon ci benn combat jam téeri nag dafa mel ni loola itam tontu na ko waaye balay muy wax moom ka nga xam ne nii moo di jibi joolaa di ansan wu li moom tey ni jaayam moom itam da la jët li wax di jarbaat ba la dëggal seen ñoom jibi joolaa daal nee na seen ndam la ñuy laaj nañ leen jox seen victoire jam tiri ne ko li leer ba leer de xanaa da ngeen di nelaw yéen daanu ngeen jël bu leer leeral àddina bi yëpp gis na ko ngeen di laaj ay victoire ak yu ma xamul jàmm ne ko yéen la rek daan naa leen ñibbi naa kayaar yéen a fa des di wax la leen neex waaye man moom jàmm daan naa leen loolu mooy ay wax yi ga nga xam ne moo di jam téeri diggante ña nga sa caatu wàll nag moom le 29 février lay am ka nga xam ne nii nag moo di idaali ñun moo fa jaar waaye ki nga xam ne moo di ka nga xam ne nii daal mooy idaali moo tëg boobu combat waaye bu ñu delloo ci diggante jampiin ak jët li kere daal boo bëggee dégg dëgg moom daa mel ni sanction yi nga xam ne ni wala boog weekend boobu sax la ko commencé samedi ba dimanche CNG bi daal jot nañoo sanctionné lu toll wala boog encaissé nañ lu tollu ci deux cent douze mille ci wàllu loo xam ne ni ay xaalis yoo xam ne dagg nañ ko ci ay mbër ci weekend bi nga xam ne nii daal moom la ñu génne loolu yëglikaay yi xëy nañ ciy ñëw di ci wax ka nga xam ne nii nag moom moo di jàppal ñoom ñoo di waa écrit yoof daal daa mel ni ñoom itam de cent pour cent la ñu réalisé ci weekend bi nga xam moom la ñu génn seen gemb door bu ñu jëloon daaw daal daa mel ni itam ñu nga awaat ca yoon wa rek waaye Kër Massar itam daal ñu ngay wane seen bopp bu baax a baax a baax yoo xam ne nii de ñu nga koy ak moom ca kanam kanam loolu yëglikaay yi xëy nañ tey wax nu ko waaye leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko fa nga xam ne nii moo di ca record muy lambi simple ji mu mel ni kii nag li leer ba leer daal soo bëggee dégg dëgg moom ngel jot mi nga xam ne rek Adrien meloon na ni këram la fi nekk nii rek daa ko faa toxali ndax nag gëj na faa gañe ab tournoi saa yu ñëwee dañ koy gañe bii ci mujje ki ko mujj a gañe moo di caaka fay ngel bët set mu continuer dem fa nga xam ne moo di simel fakale itam gañe ko foofa mu mel ni moom ngel fi mu nekk nii gañe tournoi xaw na koo të Serigne Ndiaye 2 tamit na mu ubbeewoon saison neex na lool teglante ay tournoi moo xam arène national wala gaal gi wala feneen di gañ waaye depuis boobu buñ ci jógee ba tey daal fi mu nekk nii moom itam mu ci gudd pour mu gañ tournoi lu jafe-jafe la ci moom ndax nag ci 48 heures la ko ordinateur daan ñaari yoon loolu moo tax yëglikaay bi jàpp na ne ki nga xam ne moo di Serigne Ndiaye moom fi mu nekk nii ah ay mbiram daal doxatul wala boog ñàkki koppar dal na ko ndax nag gëj naa gañe li nga xam ne moo di ay tournoi loolu mooy tey li fi ñëw ci yëglikaay yi yàgg maar Serigne Ndiaye yàgg ngeen jon lu xew gëj ngeen a ay tournoi wala boo ordinateur fi ne di ordonné di teg ay machine am di tegi semam di mu mel ni ordinateur dañ la mu tuddee boppam sax a doy waar machine rekk ci bëri ah yàgg maar kon supporteru yi seen mbërëm ko. waa Leewtoo TV ñu ànd ak yéen si jàngatu ànd Babacar maa ngi nuyu di la wax sa biir rafet na tey. waaw merci maire yi weer yi nag tey yàgg maa fi génn ah, borom liberté 4 borom sigaar bi doomu ndeyu kembees ak bës ma jës yi ma koy nuyu yàgg maar di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may soxna su baax ci mo année bii nu ne muy 2020 bii di la nuyu di nuyu internet bu Leewtoo TV yëpp dina wax ne tey weer moom yàgg ma ko jox yàlla na nekk nag sama njiglaay ndax tey la ak ki nga yàlla nañ ko gagné 4 0 dañoo nag euh, ak euh, sunu naam sunu naam moom dafa ki nga xam ne mooy Bécaye Bécaye moom d'accord li nga xam ne moom la euh, CNG Aliou Sarr waxoon keroog si point de ko war a déterminer na nag tournoi boobu noonu daf si gis ki nga xam ne mooy Balla Gaye Modou Lo Bombardier ak li nga xam ne moom mooy Tapha ci nee na titre des rois des arènes bi dañ ko war a réglementer ndax nag Modou bu jóg rek ne moom mooy roi des arènes Babacar waaw loolu day Père Bécaye wax nit ku ne nag boo bokkee ci mbir defe naa boo joxee xalaat wala sax la mën a déglu Becaye nag li may wax rek nekkul n'importe quelle son tey ci réew bi ñu ne muy Sénégal yaa ngi dégg ndax nitam ndax liggéeyam moo ko yóbbu foofu macha allah waaye tamit lamb ji defe naa ne am na ci baat ndax def na ci lu bare bare bare bari ba tax na ñu mel ni ki man tey mu bokk ci ñu nga xam ne ñun dañ koy roy ci liggéeyam xëy na nag wax xalaatam kan yi bi ñeent la ci gis muy Balla Gaye muy Bombardier muy Modou muy Tapha Tine loolu war na mën a ne itam man dama naan sama gis-gisu bopp pour man bu ñu def tournoi roi des arènes pour man war na mën a ëpp parce que xam nga lu tax ñoom ñeent ñii daanante dafa am te am nañu ñu bàyyi ñoo xam ne parce que boo jëlee Eumeu seen tey exemple daan na Balla Gaye fois Modou Lo daan ko deux fois kon sooy def tournoi pour man Eumeu Sène est-ce du ci war a mën a bokk Lac de Guiers 2 daan na nii yaa ngi dégg moom Modou Lo bëri ñaari yoon match nii bëriwaat Modou Lo gagné ko par avertissement est-ce que du ci war a mën a bokk yaa ngi dégg Gris na Bombardier mi bëri ak Balla Gaye 2 Balla Gaye gagné ko a xew Balla moo ko est-ce que moom ko ciy mën a génne. yaa ngi dégg bëri na ak Modou Lo mi tamit Modou Lo ko par avertissement. gagné waat ñu deuxième ko. Mm. yaa ngi dégg kon ñoom muy Lac de Guiers Gris Bordeaux ak ki nga xam ne nii bëri nañu. ñooñu ñëpp Ama Baldé a bokk ndax Ama Baldé tafaati mm. tey comme moom Modou Lo taxaw na kon defe naa tournoi bi pour man man sama gis-gisu bopp laa wax rek yaakaar naa ne bu nekkee quatre personnes kese di bu keroogee itam bu ñu ko bëree mu jeex coow dina continuer di am waaye bu ñu te tournoi pour man mu parce que lii nii eh, pour man bu amee day des parce que lu tax muy des mooy tournoi bu ñu ko bëggee def mu réussir mbër yi moom du ma diw ji day dañ mm-hmm. pour man tournoi bi pour mu réussir à cent pour cent il faut mu dañ il faut mu dañ mais bu fekkente ne am ba tey du ma bëreeg diw diw du bëreeg diw diw pour pour nga def fee tournoi roi des arènes mu nag mooy ki nga xam ne moom la yàlla nekk ko muy Modou mu ay loxom ñu ngi koy félicité encore actuellement mais lu mënta xew daal bu ñu ko bëggee def mu réussir day ma bëreeg diw ma bëreeg diw moom bu keroog dina waaye bu fekkee dañoo jël kaat yi kese def ko fa moom ah mën nañu mën nañ ko koo tuddee waaye bu keroogee coow na fi des de <laughs> waaw loolu moo am na solo Babacar te loolu moom mooy tëjul comme ni ñu wax rek xel bi doy xel nag suñu Pape nag moom moo jiitu si lamb wax rek xel bi doy moom la Babacar wax comme ça euh, tournoi bi na gën a am euh, ampleur ak am ñu koy waxee Babacar nag euh, ñuwaa suñu lamb aussi niñ continué aussi si xam ne amisa moom la organisé woon lundi bi ñu génn moom nee na demam daal comme ni ñu koy waxee bis ko yàlla dogalee rek dina dem Babacar waaw lu jot yomb de waaw yàlla de wax chaque jour rek man Babacar amuma lu ma koy blâmer ci côté nekkam fi ndax xam nga lu tax mooy bu fekkee maanaam li ñuy wax wala boog lu ma ci coow wala nangam parce que li tax ma loolu mooy ay nit a ko moom fi boppam. ay ay ministres yi fekk ko fi reconduire ko ne ko kaay jiite xëy na ñoom ña koy jiitaloo xëy na am na lu tax ñu di ko jiitaloo kon loolu wax ne bu demoon jotee dina dem dina dem waaye xëy na boo déggee coow di ci am wala nit ñi di wax xëy na yàggaay bi am parce que 92 la yaakaar naa. 24 ans waaw ba tey dund tuuti kon loolu bu amee nag yàggaay boobu xëy na mën a tax nit ñi dem ba benn moment ñu ne kat dafa war a dem jot na jot waaye nag lu jot yomb comme ni rek waaye bés dina ñëw moom ak lu mën a xew Babacar doo ko gis Leewtoo ndey Kumba noonu yàgg noonu Alioune Sarr doo ko gis NC keneen doo ko gis feneen waaye nag mbir moom dañu bu yàggee ba yàgg surtout yenn ay ay pouvoir yu mel nii nit ñi dañuy dem ba même booy def résultat sax nit ñi dañuy daal mm. ñu koy nuyu di ko siyaar di nuyu bi yëpp mais di nuyu tamit waa Ahlu Lamb yëpp Baro tamit yoon na si combat Boy Niang ak ki nga xam ni mooy Balla Gaye ki nga xam ne mooy Jamaïcain te te mu bëgg a tëgg combat boobu nee naa combat boobu lu si weesu 150 millions nee ko waaw te xam ne Aziz Ndiaye mi nga xam ne moo yor Balla Gaye néew ko waaw néewu ko déet neen tamit ba léegi aussi bañul tamit bëre ki nga xam ne moom mooy Boy Niang Babacar waaw daal moom du euh, euh, du ko ci weesu mm. waaw kon xam naa su duñ ma jégal ndax man dama ne na moom mënu ko ci sax laa wax man kon loolu ñumu dala ci man waaw waaye nag 150 millions wax dëgg yàlla du bu ko ci mënee moom ah waaw dafa naa ne fay na gas waaye nag comme li mu wax rek Aziz na ko waaw li li am solo nag mooy moom Jamaïcain li ma koy wax mooy parce que sama rak la sama frère am na loo xam ne soo ko ji wala mu diis bàyyi ko fa nga dem wuti leneen mbër yi bëri nañ fi tëgg na tëgg na làmb te xa amagoo looy prouvé ci làmb dafa goo loolu tax ngay nga ngay war jarul yàkkamti non non jaru ko parce que tamit gaaw euh, gaawtu bu juree doom ëllëg réccu lay doom te loolu amul njëriñ kon li ma koy waxaat mooy en tant que petit frère moom na ne ci li mu war a ne ak li mu jàpp ne boppam àttan na ko mu gérer ko tepp tepp gën yu rek naa suñu fàllu daan na ko wax yaa ngi dégg loolu moo ëpp solo tëgg nga Franc ak ki nga xam ne nii moom mooy euh, Bébé Saloum ak kan euh, booy yaraax bi nga xam ne nii moom la boole ak ak booyu ndax écrit Dakar muy tonnerre numéro 2 yaa ngi dégg voilà te dem Gambie def falu kenn amatul mm. la looy kii mm. kon li am solo mooy li ñu koy dolli en tant que conseil en tant que petit frère mooy na dal mm. jàmm dal gi def ci am solo yaa ngi dégg boo jéemee sottiwul lool du ñàkk jom te du ñàkk la jéem nga bu demul nga dem defi leneen man nag xam nga ma xam naan sama rakk nga sa grand frère la yaa ko wax maa ko wax yaa ngi may gis maa ngi lay gis yaa ngi dégg del nañuy jokkoo dama ko koy wax en direct di ko dégg jàmm du ma la jëw nañuy jokkoo maa ak yow ci lu bare bare bëri parce que la ñu seq dafa jiitu micro jiitu promoteur nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mais li ma la wax encore fois mooy defal li nga war a mën a def ak ña ko seqal sa staff mu réussir moo gën yenu loo xam ne nii da nga koy yenu yenn ko ba doon problème bi. si promoteur yi mbaj yi ana ah, yoo xam ni ay problème la lay. lamb dafa lamb sax dafa doy waar. lamb dafa nekk la wuli doon wax dafa doy waar mais lamb dafa ah, a ngi si lamb bi. léegi lamb la rek lamb mu ñu tudd lamb sax xamul lamb kon jam encore une laa lay wax de parce que sëñ Modou Niang dama koy nuyuwaat en passant dama ko daan dégg naan wax ne bopp bu seet bopp bu ndaw te seet moom ma gënal bu rëy tey mm. ndax balaa nga koo xam sa bopp ngan de ba toll ni am ba pare di ruux bu keroogee nga bëgg nelaw mu tëdd waaye bu sa bopp tuutee te boo tëddee nelaw ba yàndoo moo bu jàmm waaw Babacar ñoo des tamit si CNG CNG nee nañ euh, weekend bi nu génn weekend bi nu génn ak combat yi fa amoon ramasse nañu deux cent douze euh, douze mille maanaam daal euh, soo ko boolee dagg nañ leen deux cent douze mille maanaam deux cent douze mi ngi si kees CNG yi Babacar waaw loolu de xam naa ay sanction financière la parce que chaque ah, seet naa chaque week-end dinañu dagg mbëri parce que des fois ci règlement yi leen tegal la am na ci yoo xam ko xët ci ëppal ay nit wala jël temps bu yàgg ci say gàllaaj yooyu wala nga génn génn bu war te génn wala trois avertissement yi mat ak yu mel ni ki noonu kon daal loolu mooy li nga xam ne moom la CNG jot a ramassé ci bi deux cent douze mille mhm. ok ñu nag sunu xam ne moom euh, ki nga xam ne mooy Tapha Tine le pour bokk ci tournoi boobu noonu nga xam ne moo désigné roi des waaw moom Tafa kay jotoon li soccet ko ko laal mu naaw moom la pare moom nag naa fi mu nekk moom Tafa moom bu ñu ko doon tay tournoi de dix personnes sax moom pare Tafa mu xam naa ne fi mu nekk nii yaram waaye xasin bëri la waaye xaaral rek di xam naa takkari ci rib ji la nam mm. dafa gëj a joowu baa bu fay tëggal ko mu wàcc mm. yooyu la nam fi mu nekk nii mm-hmm. may nuyu Siga Siga Dione di soppe Tafatim aussi Babacar nee ngeen tamit journal bi aussi si xalima amoon na mi ngi waxal mi ngi xamal ne combat Eumeu Sène Bombardier moom ne dafa mel ni egg na terre quoi combat bi am ca ndox ma kay li mu duggee ci ndox de su ko jëriñoo moom buñ ca gaaw lool <laughs> waaw kay bu ne ci ndox pàcc dugg ca wàcc moom bu dee junni la boo sàgganee di ko ñàkk bu dee kayit goo soxla woon nga dem ko ñàkk. kon daal ko foofu nag doo ko ñàkk. waaw non ne dépend dégg nga li ma la wax dafa am kayitam kayit laa wax de kayit. rek la wax tout court waxuma la journal kayit la téere kayit la. xaatim xaatim mais bu booba bu keroog day am beneen tur. nu muy tudd. waaw xam nga lii journal la. parce que dañ cee bind. looloo ko utalee kayitu kese. Hmm. waaw nga ñuy ñaanee itam bu keroog yi lañ koy tuddee. waaye loo ci mën a dégg boobu combat daal kon daa mel ni kon mu ngi fay bëgg a. li waaw mu ngi bëgg a nax saan muy lu doy wax. <laughs> waaw dem na si li simple bi li simple nga xamante ni ki nga xam ne dama nekkoon tuddee woon ko waaw adressé nga moom daal ren daal gisul moom Serigne Ndiaye dër moom ak Serigne Ndiaye dër. waaw ñoom ñaar moom fi moom ren na ko moom. Mm-hmm. loolu naa ne ah na xoolaat liggéey bi xool lu manqué mu yokkaat ko li am solo mooy mbëri simple yi moom fi mu ne nii xaalis bëri na xam ne nii ku ci ñëw léegi da ngay leer parce que ay millions du fa moo na ci li simple bi Serigne lu mel noonu ndax ubbeem neexoon na trop waaye moom yaakaar naa ne daal ba ko fanaa daanee mu jógee ca ba fi mu nekk nii bëriwaatoon ba keroog a wàcc ñaaxal ordinateur daan ko ñu dajewaat fa nga xam ne mooy fu ñu ordinateur daan ko ci 48 heures muy loo xam ne daal doy na waar mais lambi tournoi nag moo mel noonu ah day varié rek day dem ak Babacar waa si kàddu yi leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu ñu ngi suñu yaay merci bi mais instant bi dañu vraiment Cheikh Khadija Diallo mel ni Mame Diarra Penda Rokhaya ak ñi xam ne moom mooy Grand Fall nuyu Abdou Gueye Baye Fall jàmbagal depuis États-Unis yaa ngi si yaa ngi si biir Ramos yaa ngi aussi la fàtte yaa ngi si biir baax waaw di ñëpp di ñaan ñëpp jàmm li nuy dégg ñu naan ko xaw ma corona nan lañ koy waxat coronavirus waaw xaw virus xaw ma virus mais loo ci mën a dégg daal fa mu amee ak fa ak réew ya mu am yàlla na ko fa yàlla yemale mu mu jeex tàkk ci àddina bi yaa ngi dégg di nuyu Sénégal yi nekk Italie di leen ñaanal yàlla ñu ngi koy dégg ñoom yàlla leen yàlla musal ci loolu yàlla bu mu dal kenn ku mu dal ba heure bi yàlla bu mu la dalak di nuyu Sénégal yi ne foofu rawatina ku mel ni Serigne Diour Italie maa ngi koy nuyu ñoom Mbacke Kébé ñoom ñëpp Ramos Ndiaye xam nga ndongo Fall ñoom ñëpp ñu ngi Italie fépp fu Sénégal ne daal ñun ñu ngi jëlee a jàmm di wax tamit ñun ñi ne fii ah gis nañ gàtt nga jàmm ci gën nañuy gàtt ndax gis nañ masque yi ku nekk jënd masque takk am na solo d'accord waaye nag nañu gàtt nga jàmm hmm. ñun ne réew mi ñu ne amul jamaa amul or waaye Cheikh Ahmadou Bamba ngi fi Maam Maodo ngi fi Maam moo ngi fi Cheikh Omar Fouti yo ngi fi est-ce que yaa ngi dégg ma waa Medina Baye ngi fi waa Léona ngi fi jàngu baa ngi fi yaa ngi dégg ñun loolu la ñu am yàlla nañu yàlla musal ci lépp lu mu mën a doon musal ci bépp doomu aadama ci musiba ak balaa waaye daal gàtt nga jàmm ci gër yaa ngi dégg te itam ñu xam ne ay africain lañ ca nangu ko waaye complexe bay dugg ci yenn yoo xam ne yow def sa bopp tubaab te nit ku ñuul nga yooyu wóorul gis nga ngelaw lii nu ne nii di ko dund mooy environnement bi yàlla jox nañu garab yi ñuy fajoo jox nañ tamit ay mag yu baax yàlla nañ yàlla jàppale musal ñëpp muy nuyu ñëpp di ziar ñaan ñëpp jàmm tuuti yaay saan maa ngi koy bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne ñoom tam dañu suivre ñoom Mame Modou Gueye taalibe Serigne Mbaye Sy Abdou ak képp ku ñuy suivre rek foo mën a ne Rimka Couture borom si sa bi duma la fàtte Mamour def katu lu baax bi Mamour maa ngi lay bu baax a baax kooku ci social lay dox ku ñu war a poussé ne Mamour Kandji moom Saliou Koule ma wax loolu te Saliou Koule lu mu wax dama koy gëm ndax li tax mooy moom day def social te Mamour Kandji da ko ciy jàppale